li may wax kon du ay du ay caaxaan du dara ma wax ma wax ko sëñ Bass jàkkaarloog moom wax ko ko moom mu am ñeewante ba ne ma danaa am ñu ma leen booleel ñu dem vérifier loolu te loolu ak ñeewanteem dong moo taxoon mu doon ko def waaye manoon na ni dégg naa seen jàmbat danaa ko saafara ta man xam naa ni loola sax moo doonoon moo doonoon ay ay kàddoom ci nun waaye ak ñeewante liñ ko wax moom moo tax mu ne nañ leen booleeg ñu ko saytu ñooña bañ ñëwee dañu maa woo téléphone man maa ma ma ñoom ñoo ma woo téléphone ni ma ah Cheikh Fall mane waaw ñu ne ma ah li nga xam ne am nga ko fa de moom du dara nañu jiital bëggu sëñ bi waaw ma ne leen incha allahu rabbi day mu ne ah ma ne ko noona laay def te yenn jéego yit du ma ko ci doxaat lu am rek ma xam ne suñ borom a ko dogal waaw ndax do suñ borom moom du dogal jàmm bi du dogal mukk ci jàmm bi loo xam ne doonut lu ko gënal. li ko gënal képp moo moo moom lay doon moo tax ma wax leen ma ma ma wax leen ma wax leen loolu bi ñu mobilisé waatee ni dañuy woo ab tele dañuy woo ab euh, YouTube dañ maa woo man leen man du wax ci rajo wax gii nag may wax ci ci ci site bii nii ak cant dong laa ciy wax ndax ñun moom ay taalibe lañ ay taalibey Baay Faal lañ kenn duñu jiitu ci li sëñ bi bëgg waaw li ma fi investir nag lu baax képp laa ci jubloon ndax ay pakk la yoo xam ne dañ ma ko jaay ci anam yu leer ma tabax ko jamono ya marché bay doog a door ba suñ jon yàlla tey ma yor ko ma ma ma tabax ko ngir dara jaal baatu sëñ bi nañu defar tabax yi ndax loolu moo doonoon ndigal li ku ci am na nga ko defar ndax moo gën nga koy bàyyi ay wéyu di ci dëkk te man ma tàmbali fi tabax benn tabax la ma ca def ay nit occupé ko di ca liggéey ma gis loolu ni am na avancement am na njëriñ may may def samay pexe foo xamante ni bii xalaat naa ni fii bu ma ko defaree jaam ña nekk fa di fa di fa yëngu di fa for seen wërsëg ma defar ko waaye nag it taxut nag ma jël loolu def ko sama bëgg bëgg sëñ bi laa ko def bu sëñ bi demee ba bëgg daa koy bàyyi man loolu rek fa laa teg sama tànk maa ngi leen di jéglu di leen sant di leen ñaanal yéen ñëpp yéen waa Touba yi ak yéen xale yi bu leen dara naqari ci man te xam ne lii lépp ak cant la ci baay Fall bi man man Baye Fall bi ndax gaar bu mag yaakaar naa bu ñu koy wax Cheikh Fall Naar moo tax kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp te xam naa ne yéen ñëpp am ak ja ak ak ñeewante ci mbir mi ci man ndax taalibe yi sëñ Touba yi nekk tubaa ak yi nekkul fudul Touba ñëpp ma maa si bëgg waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen di leen di leen ñaanal suñu borom yàgg yokk seen taxawaay waaye ñeewante googu ngeen ma ñeewante sëriñ Touba li mu ma dencal moo ëpp lii na ci seen xel dal barke maam Seera Fall man de ànd ak cant laa ci àndal na seen xel dal. kii de moom liggéey la boo xam ne Cheikh Mountakha Al Khalifa yàlla na fi yàgg te moo ko santaane te képp koo xam ne dangay ngay woy ci ndigal danga war a jëfe ndigalal te bëgg ko ndax jëfe ndigal ca la ñuy ca la ñuy jëlee ay ay ay ay ay sañ-sañ ak i lii ab sànja la boo xam ne nii bu soobee yàlla fas nañu yéene bu subaa ñu tàmbali liggéey bi sëriñ bi daal fi ko bëgg rek noonu lañ ko noonu lañ koy doxale gis nga commission bi moom tàmbali nañu liggéey ci suba ba léegi Baye Fall yaa ngi fi di bind gis nga léegi ngay gis lii mooy dëñ leer na lu ci bokkul lii bokk ci yeneen wànni fànn yi nga xam ne moom dafa am wet gu ca bokk ak wet gu ca bokkul kenn du ko laal la ca la ca bokk dañ koy dindi la ca bokkul dañ ko laal te fii war ngeen a xam ne naka jekk lu mel nii xam naa nit ñi moom ñooy def li leen neex rek waaye lu mel nii jege ab raay nii boulevard bu mel nii war nañoo xam ne lii moom alalu buur la. mbooloo mu jëm sëñ ah sëñ Mountakha sëñ Mountakha moom ku fa demit boo ko waree gis di ko di ko gis boo ko warta gis doo ko gis sëñ Mountakha ku ko di sox dafay nekk ngir soxla yi ku ñëw wax ko soxla bu dee soxla bu bu mu war a lijjanti dina ko lijjanti fi mu ne nii daal li wérte mooy ndigal li mooy jib na ñu liggéey liggéey bii la wax moom nag moo santaane bu ne woon arrêté leen lépp ñu arrêté lépp waaw waaye li wérte daal mooy ab dong ab taalibe ab murit li la sa sa sëriñ bi bum lim la sant danga ko war a jëfee te bëgg ci waaw ndax fi àdduna dong la lii poñi dong la dara jariñu ñu fi wéye ndigal bàyyi tere yi loo lool lool loolu ñu sëñ bi sant loolu dong moo ñuy jariñ wasalaam man de a Baye Fall bu sant Fall laa as ngoor su sant Fall laa rek bokk ci Baye Fall yi. maa leen di nuyu te leen siyaare te leen sant ah tey bég ci li nga xam ne moom la sëñ bi santaane man de am na ay yoo xam ne. raase na ba dara desu ca lu dul kuule waaye keroog ba ko sëñ bi waxee laa ko noppee moom te kër ga ma dëkk sax bu ñëwoon ne nañ ko toj ñu ko ñun digal rek la ñuy wiye ndax wan fii ñëwoon ndiwuti fi dara dañ noo meem indi fi lu ndaw di ko dong di dongay sëriñ Touba dara dara luñ fi bëgg lu dul lu sëñ bëgg lañ bëgg waaw te képp ku ko jëfe digal te sa xol sedd ci mën na maa wànne balaa nga ne déwén da da nga kontaan waaw ndax sëñ Muntaxa lu mu wax rek noonu la defar rek lay def waaye yàquñu dara njéeme bee laa tudd di bàyyi faalu maam jaar soppee sëñ Fall dëkk bi di man li ma laaj dama cee sawar ndax man yàlla dogal na sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg moom laa bëgg lu mu bañ dama koo bañ te wax de yàlla gaar bi li fi ban yi di def ak gone yu góor yi saay-saay yi nga xam ne nangu ñoo liggéey daf ñoo naqari waaw kon nag lii bu sëñ bi joxe ndigal ne nañ ko toj buub ko ba mu set suñu xol day set waaw man mii di wax yow ku jege sëñ Muntaxa wax dee la suñ Muntaxa moom maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal rek yàlla yokk aw fanam te guddal euh, aw fanam baax wéral ko ay cëram ñi ngi koy sant baax di ko gërëm Mbàkke ñun daal dañ koy déglu rek bu ne fii rek foofa la bu ne du fii foofa te ñun ñaanuñu yàlla mukk bu séen ci dara wala lu ñuy tere wala lu ñu di dégg ji ko ci ñoom ñaanuñu ko yàlla ah man As Gueye laa tudd As Gueye tapissier sëñ Muntaxa Mbàkke man dëkk bi ñëpp ma fi waaw maa ngi lay sant bu baax di la gërëm lii daal ñu ngi koy rafetlu bu baax bu subaak jàmm ci ajuma ji dañu teel a xëy si def ndigalal sëñ ba lépp ba ni sëñ bi ni mu ko bëggee ñu defe ko noonu kenn yi de moom maanaam ndigalul sëñ bi la te ndigal moom daanaka jafe rek waaye na wax dëgg yàlla moom ñun moom demuñu fa wayu ya dikkuñu lu mat ñaar fukki at ñoo ngi fii di daal suñ doole nu xëy xëy da ngeen fiy jóge à cause de ndigalul sëñ bi ñun nag ay murit lan te ay ndaw la noot nag ginnaaw bu sëñ bi waxee sëñ ñu sëñu cee teg baat lu dul jëfe ndigalam waaye nag wax dëgg yàlla metti na trop ba ci kanamu yàlla ndax man mi wax ak yow borom ak njaboot laa ak samay morom ñoo fi nekkan di daan suñ doole lu man ñaar fukki at ñoo ngi fii wax dëgg yàlla bu ñu jógee fii moom ah man de magum fu ma yaakaar de te xam naa ni leer na ma ni moom fii ak un mois man dina metti ci man trop ndax fi mu nii aw ma fu ma fu ma fu ma yaakaar ne fenn foo xam ne naa faa toogaat di liggéey amaguma waaw te man ab soudeur métallique laa fii dong laa xam ñaar fukki at maa ngi fi di daan sama doole jotewuma kenn dara ndigalul sëñ bi nag moom dañ koy jëfe ndax sëñ bee ko wax mais yaakaar naa ni sëñ bi moom su fi délégué woon ku ñëw fii xool tabax yi tabax ya yene ak ñun fi ñuy liggéeyee wax dëgg yàlla du benn te yàqaluñ kenn dara waaw nun sëñ bi moom liñ fi dëkk sëñ bi liñ fi bëgg a nekke liggéey jaamu yàlla amul leneen luñ fi luñ fiy def lii nag moom ndigalul sëñ bi amul na lu ñu ci wax waaye buñ sañoon moom ñu dimbali ñu xañ na nag bu ñu jëlee fii sëñ bi na dañuy ñaan sëñ bi mu wutal nun ñun feneen fu nekk ñun ouvrier yi fi nekkan di ak ñeneen ñi fi nekkan di daan doole nunu dimbali ngir yonente bi sëriñ Tuubaa mi nga xam ne borom yërmande la mu dimbali ñu jox ñu fu dem nekkaat fa di daan suñu doole loolu rek la ñuy ñaan man Maguette Touré laa tudd nekk fii ci gaaru mag di fi liggéey daal mooy euh, maanaam fii dëkk suñu Bàmba la te dëkk euh, Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul wërta am leen lu jàmm warta am leen tamit lu dul salaam tey am na ñoo xam ne bu nekkee ci àll ba di dégg si maanaam dëkk bu mel ni Touba yenn saar rëmëri maanaam day jar maanaam mais bu doon fii place yii nii man am na sama benn pap boo xam am fi presque trente places yoo xam ne nii nee mais bu doon maam immeuble bu kaw asamaan sa maanaam bu suñ bi joxee ndigal moom nan ko maasale mu mokk rumbax kon tey maanaam yéen ñi nga xam te nii maanaam yéen fi am place yéen ñëpp kenn ku ne maanaam def ko ni 1000 francs yoo génnee si sa poos rek jox ko suñ bi addee suñ Touba maanaam incha allahu rabbi balaa balaa balaa wér wér del maanaam di nga yëg ne yow mii kat defaloon nga sëñ bi dara dara dara dara loo xam ne nii a maanaam moom la la sëñ bi fayalee lii fayam yàlla nañu ko suñ borom fayal barke Seydina Muhammad man de ba ma xëyee suuf ba léegi maanaam dara andiwuma fi lu dut maanaam bëgg balaa bilee ñëw maanaam man ma jaayante fi doole damaa dóor a dóor a dóor ba sama digil nag taxaw bu baax sax mënu ma ko mais lépp rek def naa ko ngir jëmi sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal euh, sëñ Touba man fi laa yor place waaw ferrailleur maaw maay fële laa nekk maanaam euh, moo jàk maanaam bërimaa bërimaa gar bi fi jàkkaarloog moom damay jënd ferraille maanaam damay tas ay camion yo yu yàq yooyu noonu quoi di ko tasaale àlla faal njëkk baax na sëñ Mountakha Mbacké moom moom moom ëttu maamam bi ah ëttu maam ko moom kum nga toog kum naqar nga gën abal ko waaw mais damaa leen sant rek yàlla baax na xanaa li dikk mooy dàq sëñ bi lañu dimbali nag marché gar bi lañ ne ko doon liggéey maa la ñu jàppale baax a baax ay jaboot lañ ay jabar lañ de barke sëñ Fallou ngeen baal ma nag sëñ bi yàlla wér yàlla fi yàgg dañ doon jaay am dugg mu sew rek xam nga sama borom kër ma nga lee laal di ma na dugg mu sew mu bari lañ jaay sant yàlla yàlla ba yàlla na fi yàgg wér sëñ Mountakha Mbacké waaw la ma waxoon ne sa ñëpp laat neewoon na lu ne na le moo jar nit ki naan ma ne le waaye lu ne moom jërta wax nit ki nit ki naan ko mi ngi nii te ku yorti ba itam jërta waxal fii li fi nekkoon mooy béréb boo xam ne lu sëñ bi tere rek lañ fiy def ba pare ñi nga xam ne ñoo fi nekk xaj na ñenn ci commerçant yi wala ñeneen ñu mën doon seetaan ma ëpp ba population bi jógal seen bopp ànd ak waa xu daamul Xadim dégg nga ci ndigalul sëriñ sëriñ Amsa pour ñu xeex li nga xam ne mooy insécurité mooy sàngara si cigarette si jaayam yàmbaam mi ak rey nit ñi fii rey nañ fi juróom juróomi nit am na ci ñoo xam ne hôpital la ñu faatoo weele nañ fi nañ fi seen soxna ba mu wàccub liggéey kon ne nag di former ay xale loolu mooy mbir mi ci nekk léegi nag Serigne taxaa mi nga xam ne yàlla na fi yàgg loolu te wér di xalifa général des mourides bëgg dellu si buum ca boy bal mooy la Serigne Abdou Lahad nekke woon dégg nga mu nekk ca ba pare ànd ko Cheikh Ibrahima Fall muy xalifa général des Baye am ndi Amdi Modou mbenn di ñaan mu yàgg fi loolu te wér ànd ko tamit ak sët yëpp comme ni ko sëñ am sa waxee barki démb moom sëñ sëñ Abdou Samatum sëñ Soy bu comme ni mu ko waxee barki démb jël bakkanam teg ci loxoom ni gar naa euh, sama bakkan ci li sëñ bi tere ci dëkk bi sell bi di Touba ba pare woo seex yi woo ñëpp woo ñëpp woo ñëpp muy ñoom fi ñu toll nii sët yi taxaw nañ nag ci dëkk bi pour wane dëkk bi nag sëñ Touba ko seen bopp. seetaan mi dafa ëpp seetaan dafa ëpp xeex nañ ci guddi xeex ci bëccëg dañ cee néew doole xeex nañ ci guddi xeex ci bëccëg ñuy seetaan xeex nañ ci am nañu bari ñëw fii tey naan ñun ñii ñun la ndax ba ngeen di xeex bu ñu jógoon ànd ak yéen jëlee fi lii du am loolu moo waral. déet man duma duma duma duma duma duma duma duma mairie ah ah jaayuñu ma place te képp kuñ fi mas a jaay place man de lañ ma jaayoon ca Njenne te sëñ Saliou joxoon na ko en 2004 nga xam ne sëñ Saliou moo ne woon yéen dem kati jaww be dem leen ca marché Njenne bu sëñ Baara Njenne ba am naa fa 60 yoo xam ne dañ ma koo jaayoon. dégg nga waaw am na yoo xam tabax naa ko ba mu raase dégg nga ba ñuy dem ci sëriñ bi nag di wax ak moom ca Cheikh Mamadou Bassir lañ doon wax mooy li nga xam ne mooy fi agresseurs yi nekkee te rey nii di ag yu demee noonu te loolu la seriñ bi ni woon la fa nekk tañ fi def yi ñaawteef nañ ko fa jëlee. yaakaar naa nag ci biir loolu ah euh, am na coppi am na kilifa yoo xam ne ñëw nañ fi ànd ay kilifa ñu wëral seen bopp ba ca station ba. daan na dem ba ca fa nga xam ne mooy fa njalu suuf ba nekk ñu koy rafetlu nag di ci am kontaante bu baax a baax a baax a baax man la ma waxoon rek laa wax man bu fekkee sëñ Tuubaa nga gëm yaakaar ko maam affaire daa war a neex ci yow am déet sëñ bi <laughs> daa war a neex ci yow ndax yàqi neex ji nag mooy waxuma wax nii ci kaw rek mu neex daa war a neex ci yow ci kaw neex ci sab xol ci kaw dégg nga loolu mooy li nga xam ne mooy li am léegi nag lépp bàyyi nañ ko loxoy kilifa yi mooy daal sëriñ bi li mu bëgg ci dëkk bi nañ ko ci jàppale mu am ci ndam ak sët sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal ah man de sama xalaat mooy nit ki moom boo koy yëkkati te fam nekk mu di fa liggéeye occupé ko woon bala nga koy yëkkati war nga ko ni am foo foo teg mi ngi nii am na fi nag foo xam ne fii moom ña fa nekkoon la fi nekk mooy ay place yoo xam dañ ko def ay ay sukk ba mu àgg dara néew fa muy diggante ñaari wet yi mais nag euh, Euh, loolu daal moo ci ne daal waaw. ni mu demee nii fii lañ nekkoon di liggéey di dóor di dóor di dóor suñu waa di daan doole di nga suñu mbokk ñi fi nekk ndooloon ñoo ngi nii magasin baa ngi nii roñ nañ bagage yi bagage yi yenn yaa ngi nii ñoo ngi roñ di yóbbu nii léegi daal ñun li ñuy ñaan ñun dëkk bi tey ñun dëkk bi ñun sëñ bi rek lañ yaakaar sëñ bi rek lañ yaakaar ndax mooy borom dëkk bi léegi nañu dimbal rek wut ñu fu ñu mën a nekk foo xam daan doole di yor suñu jab di dimbali di jox wut luñu jox suñu jaboot loolu doonga lañ fi ngi nii xaaj bari lañ jotoon def mi ngi nii bagage yaa ngi nii roñ na ñoo ngi roñ di yóbbu lépp sax amuñu fu ñu ko def ndax xam nga bagage yi neexul denc ci kër ndax xajul ci kër gis nga bagage yi bare ni dañ koy yóbbu nii teg rek ko dénkaane nii gis maa ngi jël borom bëret jël nii bagage yeneen di yóbbu nii amuñ fu ñu ko teg waxaguñ beneen marché boo xam ne fa lañu war a dem nag noo jóggi moom man moom diggante ñetti fan yi laa ko yëg normal ndax dañuy waxoon ni tabax yee rek la ñuy toj yi nga xam ne nii defuñu dara moom la ñu waxoon dañuy toj man di dip ñaari fa laa doogaa yëg ni la ñuy toj waaw digg tey tey jii nag la la Baye Fall sëriñu Baye Fall bi ñëw xamal ñu ne nag lépp mooy jóg ci la ñu doog a profité jëroñ ci bagage di yóbbu fële am non am na ñuy yàqu ndax bagage am na yëpp xam nga yëpp xajuñu fii bagage yëpp xajuñu fii am na yoo xamante ñoo ngi ko yóbbu fële marché Kër Ñang teg am man fa ma teg samay bagage amul bunt amul dara dama ko fa tegani noonu rek benn paa moom moo xajal foofu rek ma teg ka benn amul fenn foofu laa ko tegagum noonu ñun daal li ñuy ñaan tey ma Assane Diop man daal tey li ñuy ñaan sëñ bi mu wutal ñu fu baax fu ñu mën a nekk ñun moom tey ñoo ngi si di gannaawam rek doon bi ba faawo rek nañu dimbali rek wutal ñu fu ñu dem ñun fu ñu man a daan suñu doole. a ah, gis nga ko de ñun de moom ñoo ngi nii rek mu métti lool nag danañ jëfee nag ndigal nag moom waaye métti na lool ndax suñ lépp fi la nekk lépp fi la ne añ beeg reer beeg léeg lépp ñu doon ay gone nag di daan suñu doole nag métti na nag waaye nag murid daa baaxoo jëfe ndigal waaye fu metti di egg àgg na fa waaw amuñ ko moo moo méttiwaay bi joxuñ ñu dele utaluñ ñu fuñ nekk a ah, amuñ kuñ ko ñoo ngi ne ay sare lañu fay di ko jox def ci bopp ko ñi amuñ fuñ ko dugal waaw yitti na trop ah ñu wutal ñu fuñ ne wala ñu bàyyiwaat ñu fii ñu xam ñu eh, eh, teg ñu fi ñu liggéey ñun marché bii lañu xam di daan suñ doole ba ñu sëñ ba fi sëñ Saliou defee ba tey fi lañ ne di liggéey waaw buñ sañoon nit ñu bàyyi ñu fi ngir jëmmi borom dëkk bi rek ñu liggéey liggéey rek lañ xam waaw loolu daal mooy suñu xalaat moom Kumba Badiane su ndigal jógee da koy jëfee ndax Baye Fall kenn waru koo jiitu ci ndigal te man Baye Fall laa Baye Fall dund toj bi mën naa laa wax ni la man maa ci gën a ëppale luñ fiy toj ndax euh, euh, pilis nañ presque lu mat ñaari étage ba ñett ci sama alal yoo xam ne yëpp wax nañ ne day toj léegi nag man ci sama jëm bopp loolu ak cant laa ko def ndax Serigne Touba Baye Fall amul lu dul ndigalu sëñ Touba te ñun sëñ Touba rek lan am ta mbir mi dem na ba ëpp ay loxo ñun ñëpp ndax dem na ba maanaam euh, mbir mi àgg na foo xam ni ah noonu nii rek lay mën a demee ndax sëñ bi moom bëgguk sëñ bi moom kenn du ko wecceeg sa bëgg ak lu adduna neex-neex doo ko wecceeg sa sa sa bëgg. léegi nag man ci sama jëm bopp bi sëñ bi bi ndigal li daanoo ca laa commencé di dajji sama alal man di dindi la nga xam ni maanaam ah, moom la sëñ bi bëgg ñu dindi ko fa. mu doon sama alal ma tàmbalee ca waaw calaay laay tàmbalee nag ba keroog muy jeex ma doog a jàll ci leneen loo xam ni euh, du sama alal. waaw loolu xañ na sëñ bi moom yërmande moom amoon na ko ci lépp bat léegi sax yërmande la am ci lépp ndax lii lépp yërmaande dong moo ko lal du doon doonut loo xam ne luy yàq la ndax sëñ bi ko xalaat def ko. xaj na lam ko xalaat lam xalaat ba def ko loola mooy ah, bëgg ak sëñ Touba ndax sëñ bi du xalaat lenn lu dul bëgg ak sëñ Touba loolu rek moo tax mu mu def ko. waaw xam nga boo gisee sax nit ñi ñëpp ñëpp ñëpp dem di dem Baye Fall yi lañ ko jox te Baye Fall yi lii seen digal mooy li leen sëñ bi jox duñ ko ëppal duñ ko yéesal fi leen sëñ bi yemloo danañ fa yem fi mu leen war a tàmbaleel dañ fa tàmbali. lañ leen waxoon ñu lañ leen la leen sëñ bi sant pour ñu def ko danañ ko def ba mat sëkk ni ko sëñ bi bëggee. ndax nekkul ne seetaan dafa am fii seetaan moo am ba li waral waaw lii seetaan sax am na ci ndax li tax seetaan am na ci mooy maanaam waa koñ bi ci boppam mënoon nañoo mobiliser fexe ba lépp luy ñaawteef ñu jëm di ko fi mobiliser di ko fi dindi ndax sëñ bi du doon du doon koo xam ni koo xam ni day ñëw di faj la nga xam ni moo xew ci sab koñ. yow ma fa dëkk yaa ko war a faj man wax naa leen ba tàyyi wéy yi nañ jéem a xool lu leen lu ñu nu ñu mobiliser ba jéem a fexe am lu ñu fi samp loo xam ne dañ leen fi jëlee waaye boo waxee ñu ni loolu boo ci duggee da nga ci des ndax am na keneen koo xam am nañ defoon nañ fi benn délégation ba doon ko def mais dafa am benn booy boo xam dañ koo jot dañoo jotee ak moom am koo xam ne ci koñ bi la dëkk ay waajuram ci koñ bi lañ dëkk dem def porter plainte ba booy bi presque tëdd na ci lu mat 3 mois xaw ma 6 mois te loolu kenn euh, defu ci intervention léegi nag loolu moo tax ñoom ñu xonet ndax kaso dafa metti te def loo xam ne dala ciy dugal te jamonoy léegi ji loolu dugg bu fekkente ni doonut loo xam ne lu état bi àndal la dañ lay dugal ci kaso yoon wala ñu ñu lijjanti koog yow kon loolu moo moo taxoon xale yi xaw a teey nag ci wut seen défendre seen bopp waaye bëggoon nañ ko waaw sama tur Cheikh Fall Nar man sama jëmm donc ko ko gis da ko xam jërul may présenté wu waaw man moom dëkk bépp moom ñoom dëkk bépp ma xam te ma xam mooy jëfe ndigal bàyyi tere man lépp lu sëñ Tuubaa bëgg lu dik bëggam mooy sama bëgg lu dik tere mooy sama tere waaw man damay sant ñëpp li ko tàmbalee ci sëñ sëñ Abdou Ka ba ci sëñ euh, Bass Abdou Khadar di jiital ci cant gi nag lépp ak ak ak ak ak ak ñaan gi sëriñ Mountakha Mbacké ak xalif général de Baye Fall ñoom ñaar laay jiital ci cant gi di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi te wéral leen te man de dem naa dem naa ci ñoom ñoom bi bi affaire bi amee def nañu ab délégation ñëw bañ ñëwee ni ma dañ lay jiital ma ni leen man ab taalibe laa taalibe nag li ko war mooy jëfe ndigal bàyyi tere te am na loo xam ne rus naa ko dem di leen ko ñaan njekk te xaw ma fu seen ak bëgg toll ak seen yéene fu mu toll ci jëf ji léegi nag mu ne ah, man leen danaa dem ndax da ngeen maa ñaan njekk te man mboolem yéen ñi ñëw ci man marché bi man maa ci ëpp lu ma ci am kon gannaaw ñaan ma njekk nag danaa ñëw ànd ak waaye ku ma ci dem sëñ Bas ba ma demee ci moom dama dama dama raam ba àgg ci moom wax ko ko man de gars yi indi nañ ma waaye bu ma sañoon sax sëñ Bas du ma ñëw ci mbir mi metti na ma trop li ma ci li ma li ma la ciy wax nag man dama laa mën a wax ni la maanaam mbir ma man maa ca ëppale waaye nag it du tax bëgga ak sëñ bi ma di ko xëccoo ak dara waaw bëgg bi du ma ci ëpp du ma ci xëccoo dara mu ñeewante ma ci la nga xam ne wax naa ko ne ko moom laa faam ndax ba ma ko waxee dama ko ne man de ci li nga xam ne programme bi nga xam ne moom la ñu war a toj am naa ci lu mat deux cent millions programme mooy programme mu toj euh, tàmbalee ci tabax yu yàqu yi jëm ci biir jàkka yi ma ne ko am naa ci lu mat deux cent millions te bu ko neexee mën naa ñëw ndax ñii ma wër ñëpp